daal dinaa a ngi may dégg. incha allah alhamdulilah place bi ñu nekk fii mooy place mooy Al Hudaybiya Hudaybiya gis ngeen mi mu joge Makka yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa jógee Makka bu métti mooy Makka ñu turam bu dara te xel nañ ko def nañ ko lu nekk caata ñett yi fa nekk di woote ba yàlla may ko ndigal pour mu dem Madina que bi muy génn sax guddi googu naruñ ko woon bàyyi mu dem def nañu seen plan ba ne dañuy wut xale yi gën am doole ci biir Quraysh subtray bu nekk ci Quraysh ñu génnee fa benn waxambaane jox ko arme xam ne buñ ko reyandoo Banu Hashim du ñu mën a xeexal Quraysh yëpp te bu ñu bëggee alal ñu dajal li ñu am ñu jox leen ñu nopp la ñu ma xam ne moo doon seen plan waaye fekk yàlla moo am na beneen plan alors bi mu génnee dem madina nag nekk na fa juróom-benni at waaye xelam toujours mi ngi ci dellu si Makka ndax fii la juddoo fii la yaroo fii la defee lépp ba benn bés sama borom taala wan ko ci nelaw ne mi ngi dugg Makka di umra si te géntu yonantu wax yu la yonantu nelawee yàlla wax ak moom wax yu la suy xoolee yàlla wax ak moom wax yu la bu xëyee mu informé saxaaba yi ñoom ñëpp ñëpp ñu préparé wu sol seen arme pour ëllëg gis ngeen Madina ni mu soree ñëw nañ bay jub si Màkka fii Màkka yëg ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ànd na ak ay saxaabaam foog ne dafay xeex si yonent it ci ak mbaax ñu pour leeral leen ne ñoom xeex indiwul ñoom ñëwuñu ak arme dañoo ñëw pour umra si te Quraysh dafa bokkoon ci seen aada même seen noonu yi gën a noonoog ñoom sax mosuñ leen tere ñu ñëw ziare si néegu yàlla même buñ nekkoon en guerre ak yow boo ñëwee foofu ñu pour une première fois pour la première fois ñu tagg seen aada boobu ndax noonoo gi noonoo ak yow salaay salaam mu ne ah loolu mënul nekk yonentu salaay salaam tànku fi yónnee ki mu yónnee xaw nañ koo bëgg a rey waaye alaxbaas ñoo ko défendre ba reyuñu ko pour mu wan mu wax leen na leen ñun ñëwuñu pour xeex si dañu ñëw rek pour bés yonentu ne kon nañu yónni Omar Omar ne ko boo ko defee caab ko ndax man damaa naqari deret te Quraysh su xam nga ne euh, maag ñoom maag ñoom suñu rab demeewul noonu ba ma yónnee li nga bëgg doo ko am yónneel Ousmane Ousmane tey na ñëpp bëgg nañu saxaaba yi noonu lañu meloon ba nekk da nga doon gis nga ne ci ci des waaw mu yónni Seydina Ousmane ñu demee Seydina Ousmane nag ñu ne ko ah yow de gannaaw ñëw nga mën nañ laa may nga wër nekk waaye Mouhamed ak ñi mu àndal duñ ko wër Seydina Ousmane ne leen néeg buñ tere yonantu sallallahu alayhi wasallam soxla moom alors Seydina yéex a ñëw ñu am ay rumeur yu daw ne ah rey nañ Ousmane rey nañ Ousmane bi loolu amee nag saxaaba yi yonantu sallallahu sa wasallam woo saxaaba yi ñu ñëw te bu fekkee ne li ñuy wax dëgg la bu yekk ñëwuñu woon pour xeex waaye ñun ñëpp danañ xeex ak ñoom ngir fayu deretu Ousmane te boobu yonent bi salaay salaam moom ak saxaaba yu ànd ak yëpp 1400 rek lañ te boobu jullit di bëri nañ ëpp nañu loolu waaye 1400 personnes lañ ñoo ñëw ci suufu garab bi garab gi fii la nekkoon nee nañ wax ne ne toujours am na garab bu fi nekk xaw ma ndax garab ban la ci yi waaye daal ci digg bi la woon garab googu la ñuy tuddee euh, garabu ngëri ngër màndi ndax ci la jaayante bi nga xam ne yàlla gërëm la ko amee maanaam yonent bi salaay ne képp koo xam ne pare nga pour euh, fayul deret Ousmane bi nga xam ne ñu ngi wax ne rey nañ ko su fekkee loolu am na ku pare rek na ngeen di sa loxo bi ñëpp ñu ñëwee teg seen loxo yonent bi salaay sallam bi mu tegee loxoom daal di jël beneen loxo teg ci kawam ne sama ñaari loxo bi moom moo représenté Ousmane maanaam moo jaayanteel Seydina Ousmane alors gannaaw ga nag ci la ñu prouvé ne loolu am Ousmane rey ñu ko Quraysh yi bi ñu déggee ne yonentu sallallahu alayhi wasallam liñ def naqari na ko ba pare na pour xeex ñoom ci lañu yónnee ku ñëw ku négocier parce que ñoom dañ doon jéem a intimider yonent bi dégg nga parce que yonent bi mu ngi fi am indiwul ngàndaay te bariwuñu ñu bëgg a utiliser loolu waaye jullit yi wan leen na leen ñun bu ngeen ñëwoo mën nañ leen faw alors bi ñëwee nag jéem a intimider doxut ñu gis ni jullit yi bennoowee ñu négocier négociation yi nag ñu def fexe ba signé benn pacte pacte bi li ci nekk am na lu ci Sidi Souleymane Jules Sall mooy benn danañ def li ñuy tuddee euh, cease fire diggante yonantu ak Quraysh fukki at duñ ci xeex waaye ci biir fukki at yooyu nag. képp ku jógee Quraysh ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ay kilifaam d'accord dañu koy def waaye képp ku ci yéen jullit yi bëgg a tubbi duñ la ko delloo yonent ne waaw xam nga ñu bëri dañ naan ah loolu dafay mel yonent doo faible déedéet yonent xam na ne amul kuy dugg ci lislaam di delluwaat di tubbi xamul ko xam xam na ne loolu daal moo mu ne leen d'accord mhm. loolu benn la ci eh, condition yi beneen bi mooy yonentu sallallahu alayhi wasallam moom jullit bi sañ nañoo def alliance ak bépp tribu bu leen bépp giir bu leen neex Quraysh tamit sañ nañoo def alliance ak giir bépp bu leen neex képp dugg ci alliance bu Quraysh lu Quraysh wax ak yonent bi dañ koy respecté ci ñooñu képp dugg ci alliance yonent bi lu yonent bi wax ak Quraysh dañ koy dañuy respecté giir googu dugg ci alliance yonentu sallallahu alayhi wasallam donc yooyu euh, nga xam ne ñoom la ñu def saxaaba yi nag ñoom la li leen métti mooy la fekk ñu ñëw ba fii mënuñoo def parce que li ngay xam ne moo njëkk ci terme yi mooy umra bi mën nga koo def gaa waaye du nekk ren da ngay bàyyi ba déwén boo ñëwee ñu bàyyee la dégg nga euh, kaaba gi wala ak màkk ñetti fan pas c'est pas que comme xam naa si Souleymane la ma ñam moo ko jiitu c'est pas da ngay toog ñetti fan ñu génn nga soog a ñëw déedéet ñoom dañuy génn bàyyee la màkk ñetti fan yaat ngeen yaat julli ji bu ngeen paree li ngeen def yëpp ngeen génn ñu ngi duggaat te bu ngeen di ñëw nag bu ngeen di arme yonent bi d' accord donc bi ñuy signé loolu donc am giir yoo xam ne dugg nañ ci suuf alliance Quraysh am ñu dugg ci suuf alliance yonentu sallallahu alayhi wasallam donc yonentu sallallahu alayhi wasallam nag bi ne saxaaba yi kon nag jóg leen wattu te loj seen i jullit ñu dellu saxaaba yi pour la première fois yonent wax jóguñu parce que ñoom booba namm ñu mag te xam nañ ne yàlla lu wax yonent bi dëgg la ndax wax yu la lu tax kon duñ dem lu tax yonent bëgg a nangu Seydina Abou Bakar bi ko Seydina Omar seet ko ne ko Seydina mu ne ko Omar nii lu mu la wax ak yàlla bi ko fekk bi Seydina Omar ñëwee ñoo yonent bi wax ko ne moo la wax ne da ngaa da ngay dugg euh, màkk mu ne ko ah lu tax duñ dem ba mu ne ko ndax dama laa yàlla bi ma ko waxee ndax dama laa wax ne dafa ne ma ren mu ne ma mu ne ma mu ne ma ko wax su jotee rek dana ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci place am Seydina Aboubacar mi ci beneen place Omar jógee foofu dem ci Seydina Aboubacar mu tontu ko exact li li ko yonent bi tontu nga gis Aboubacar ni mu mel yonent mu ne ko ndax yonent daf yàlla daf ne ko ren mu ne ko ko yàlla mi ko ko wax dina ko indi yonent nag bi nga xamee ne loolu am na foofu lañ daan waxee mbiru Sayyidatuna mu Salamata dafa jóg dugg ci biir néeg bi ci tànt fi ko defaral waxtaan ak soxnaam Sayyidatuna Umu Salamata Sayyidatuna Umu Salamata laa àndal ñu ko sang bi nit ñi yow mu loj eh, ñoom ñëpp ñu jóg def la même chose ñu retourné loolu mooy première umra yonantu moo tax bu ñuy wax umra yi yonantu bi daf lay wax ñeent la boobu la ñuy njëkk bien que yeggul waaye yàlla mi ngi fay innamal a'maalu binniyaat yéene woon nañu umra kon am na yoolu umra parce que boobu mooy premier umra am dañ leen a dëpp atum déwén ba mooy septième année bi moom la ñu tuddee umratul qadaa mooy umra ak ñëw bi mu ñëwee euh, Makka comme niñ ko waxee woon ak Quraysh umra léegi nag balaa huitième année bi am lu xew mooy Quraysh dañoo jàppale ak seen allié yi dal ci allié yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Banu Xuzaa te loolu ko defee mooy bitt mooy euh, nan lañ koy waxee li nga xam ne moom moo nekkoon ci pacte bi ci contrat bi parce que yonent dafa leen ngeen xeex ak ñun du ngeen xeex ak nekk ci suñu allié suñu suñu allié yonent bi tamit sallallahu alayhi am na ñoo xam ne tuub nañ ndax Suhayl mi nga xam ne moo doon négocier contrat bi bi ñuy bi ñu bindee seen contrat yu bay bëgg a signé mu mel ni yàlla mooy natt jullit yi ak moom mooy njëkk moom nga may njëkkat yàlla mu ne ko ah, ko fan bu ñuy bind Aliou bind ne lii bisimilah rahmaani lii la yonent yàlla Muhammad salaay sallam dégg nga signé waan ak waa Quraysh kooku ne ko bu ñu gëmoon ne yonantu nga du ñu xeex ak yow mm-hmm. waxal Muhammad ne ko man loolu du ëpp didil Muhammad Rasulullah gi Aliou ne loolu moom du ko du ko dindi yonantu ne ko la Rasulullah gi ko waxul li taxul teewul ma nekk Rasulullah mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam mais Aliou tekki na ko moom muy fay far mooy prouvé ne yonantu bi mënul woon liir sax ci boppam waaye ndax bu mënoon a liir ñu dafa jàng mm-hmm. waaye moom mi mënta liir téere bi mu ñu indil ñuy liir aadama ba ci xawa téere bi jommal na mooy master book ci arabic literature amul benn ko bu mos a mel ni moom ki ñu wax ki ñu ko wàccee ci moom sallallahu alayhi wa mënta liir moo tax bu ñu moo ko bindi kon jet ku mënta liir mënta bind indi lu mel noonu euh, loolu kéemaan la waaye euh, li mu indi bi yàlla la subhanahu wa taala ñoom nag bi ñu brekkee loolu waa Banu Xusaa ñëw seet si bi salaay salaam wax ko ne ko lii la Quraysh def ak ñi ñu àndal yonent nag salaay salaam ne leen dinaa leen wallahi dinaa leen dimbale su ma leen dimbalewul yàlla moo yàlla dimbale mhm. ci la nag woo woo saxaaba yi ñu préparé wu pour jëm mag mooy huitième année bi bi mu ñëwee nag huitième année boobu ci la Fathu Makka bi mu ñëwee ànd ak lu ëpp fukki junney soldat Quraysh bi ñu gisee doole ndax yonent salaay salaam it lépp balaa daf koy dafay daf koy def ak yërmande daf koy def ak xel ndax bi mu ñëwee ñëw rek daal ci kaw màkk dafa ñëw ba buntu màkk bu daal di taxaw ñu daal di wax nañu taal ay safara ay pour pour waa màkk gis ñoom nan la pour gis bu gisee lañ toll su boobaa bu ñu jël risque di xeex ak ñun en effet loolu moo xew xam naa bi ñu gisee affaire bi ñoom ñaar ñu jaaxle lii lan la te yoon bi salaay donc organisé na affaire bi ba nga xam ne affaire bi génnul benn saxaab yi rek moo moom nga xam ne amoon na euh, ak jaaxle ci bu affaire bi génnee Quraysh am ndam moom jaaxle na fu muy lu muy def ak Quraysh moo bëggoon na moom moo yónnee woon ab lettre pour wax Quraysh ne leen nañu nañu nañu nañu ñëw waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wala nañu moytu parce que baa ngi ñëw xam nga lu jiitu loolu Quraysh bi ñu xamee ne break nañu kii bi yónnee nañu Abu Sufyan Abu Sufyaan bi mu ñëwee yonent bi recevoir parce que liñ def bu koy bu leen bu yonent bi nangoo dafay bitray moom kon allié bi nga xam ne waxoon na daf leen di def alors Xaatib bi eh, ibn Abi Baltaa te bi mu yónnee lettre bi yonent bi salaay salaam yàlla informé ko parce que dafa jox benn jigéen yonent bi yàlla wax ko mu yónnee Aliou ak ñeneen ñaar pour ñu dab ndaw si bi ñëwee xool ndaw si ne ko yonent nee na am na lettre bi la jox génne ko ne man joxuñu benn lettre ñu xool ko Alioune ne ko boo ko génneewul dinañ la fi dinañ la ñu xool xool xool xool gisuñ dara Alioune ne ko yonent bi yàllaay wax ak moom te yàlla lu mu ko yonent bi nu wax dëgg mhm. soo ko yónneewul dinaa tas sa yére yi boo ko génneewul bi ko bi mu ko tiitalee ndaw daal di dindi la tamit génne leen ñu fekk ci loolu biñ ñëwee nekk xaatib moo bind leen naka lañu agsi rek yonent ne xaatib li lan la Omar ne bàyyil ma dog bopp naa fekk bi yonent ne ko déedéet ci fekkee na Badr yàlla loo lu la xamal ne yàlla xoolul waa Badr da leen def leen lu leen neex baal naa leen xaati lu tax nga def lii xaati wax ne moom amul benn mbokk fii amul kenn ku ko jàppale dafa bëggoon rek loo xam ne su ko defalee Quraysh ñoom dina ñëw négocier ak yow ndax bu ko defee moom mu am mu fa mu nekk mu am fa tànk mu am fa tànk yonentu ne wax na dëgg alors ala xaalin bi ñëwee Quraysh bi ñu xamee ne yëf yi yonentu bi la di laa Abu Sufyaan ñëw Euh, dégg nga moom bi ñëwee gis na doole ji yàlla laal xolam moom it di dugg ci lislaam bokk na ci teraanga yi ko yonantu wax ne ko wax ne mag képp koo xam ne ñoo nga ci kaaba bi sauvé nga képp ku teg sa armée sauvé nga képp ku dëkk dugg kër Abu Sufyaan sauvé nga maanaam ndax ndax ñoom tiit nañu am kenn ci waa Medina ne tey mooy bésu xeex tey la yàlla toroxal Quraysh ak ak li wër bi yonent bi déggee loolu ne ko déedéet tey mooy bésu yërmande tey la yàlla teddal ko rey ak li leen loolu donc yonent bi dugg na Màkka ñoom ñëpp kenn xeexul lu dul ay petits individuels bi nga xamee ne dugg na Màkka ba ñu toj xërëm yi ba nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi toog ku ci nekk ci ñoom bu ko xoolee am na lu mu ko def loo xam ne jàpp na dañ ko war a rey yonentu daal di leen lu ngeen foog ci lu ngeen di xaar ci man tey yow de ku tedd nga doomi mbokk mu tedd nga mu ne leen du ma leen wax lu dul la ma la sama mbokk ma waxoon yonentu yàlla yusufa mhm. laa tasriba aleykum yow am amul lu naan lu ma leen di yeddee dem leen you are all free mhm. li nga xam ne moo leen différencié woon muy l'islam ci boppam wax leen ne bu ngeen tuubee ma bàyyi leen parce mhm. boo ko forcé nit hypocrite ngay am moo tax bu forcé kenn dañoo loolu màkk googu nag nga xam ne moo ubbi euh, doole ba faw gannaaw badr euh, sulxu bi amoon fii xew-xew bi amoon fii Xudaybiya boobu kon kon bu ñëwee fii nii xew-xew boobu la ñuy fàttali Xudaybiya mi ngi amoon juróom-benni at gannaaw gàddaay ñaari at après muy huitième année gannaaw gàddaay gi ci la Fathu Makka am donc Fathu Makka moom bi mu amee juste après ci la Xunayn am Xunayn mooy Fathu Taif ak yooyu yëpp donc bi mu jógee Xunayn nag balaa moo dellu dañ ne umra loolu mooy troisième umra yonent maanaam la tudd jaaraam quatrième umraam bi mooy umra bi mu def ak bi muy aji mooy dixième année maanaam deux ans après bi mu jógee ci at googu aj googu nag ñetti weer la ci teg ci weeru gàmmu ñaareel fan Hudaybiya Hudaybiya Hudaybiya Hudaybiya noonu la tudd maanaam léegi nag li fi xewoon moo tax moom la ñuy wax sulhul Hudaybiya convention bi ñu signé woon Hudaybiya mhm. dégg nga muy muy ceasefire ceasefire of Hudaybiya dégg nga mhm. umra gi mu doon def tamit moom la ñu tuddee umratul Hudaybiya ndax fii lañ ko bloqué woon mhm. mooy the messenger ñoom ne ñoom dañu waxoon nañ Aliou nag ne rasulullah moom du ko fal. Mhm. moo tax ñuy wax ne léeg-léeg teggin loolu bu doolee topp ndigal. Mhm. parce que yonent bu la digalee da ngaa war a def waaye Aliou teggi na mayut ko muy far rasulullah parce xam ne yonent mooy rasul. waaw yonent rasulullah waaye bu ko ñuy nangu ci bu nekk mhm. mu ne wan ma fan la rasulullah di soxla mu ngi ko wax. bindal xam bi garab gi lañ toogoon léegi nag xaw ma ndax garab gi la am déet waaye yàlla tudd na garab gi yàlla nee na laqad radiyallahu anil muminin yàlla gërëm na julliti kontaan na ci julliti id yubaayi'unaka ba ñuy jaayanteeg yow taxta shajarati ci suufu garab ga fa alima tam xam maa fi qulubi bi nekk ci seen xol ñi jaayanteewoon ak moom yonent salaay salaam nee leen tey jii yéen ñii yéenay ñi gën ci kaw àdduna junne lañu woon ak ñeenti téeméer 1400 personnes moo bu ñu tuddee ahlu badar tudd ahlu uhud ñu ciy teg mooy ahlu badar ridwaan te boo demee ci ahlu bayt ridwaan da nga maanaam bayatu ridwaan la ñuy tuddee xew bu yàlla gërëm ci loolu nag bi muy jàll nag ci la yàlla wàcc innaa fatahnaa laka fathan gis nga yàlla nga koy wax naan ko na la fathu mooy jox na la conquête bu te booba ñoom ñu ngi foog ne ñu ngi ci une situation de faiblesse mm-hmm. alors que yàlla nga koy wan ne ko nag fàttu bi dikk na li nga doon xaar ak seen mm-hmm. te diggante boobu nag ci la réglé yu bëri ñaari at yooyu ci yowoot yi ko doon sonal ak yeneen ñi nga xam ñoo nekkoon ci alentour parce que Quraysh bi nga xam ne mooy noonu bu gën a mag mi ngi ci ceasefire ak waaye bi ci bi créé ceasefire bi nag ci la ñëw attaqué waaye bi muy ñëw ci attaque ci xataa ci attaque am daf ci wane yërmande ñëwul rek attaqué te ba muy ñëw yëguñu mu ngi ñëw naa bett waa Màkka rey waaye nga xam ne diine ji ñëwul pour rayee bi mu leen baalee ñoom ñëpp ba muy dem xonee ni ñoom ñëpp jëm tub tub ñëpp biñ demee xonee ni tamit lañ fa dajale ci alal yëpp waa Màkka la ko jox bi ko joxee waa Màkka waa Madina di wax ne a ah yonent de boo moytul kon dootul dellu ndax ñëw na Màkka mi ngi cay mbokkam alal ji yëpp jox nañ ko waa Màkka mu daal di woo waa Madina ñu toog mu toog ak ñoom te leen lu ngeen wax ñu ne ko ah, man ñi de waxuñ waaye xale yi de nee nañ nangam ak hmm. mu ne xanaa du leen doy nit ñi jël alal ji yéen ngeen jël ne ko ah kay mu ne man su ma dundee yéen a moom moom su ma dee yéen a